yor na appartement boo yoree xaalis seet si ma yaa xam looy liggéey doonal taxi man li ngay war maa ko yor ñëwal def ci man appartement bi foo ju fay courant bi yombee leen ni gaañ yi bokku ci ñi réglé kaay Yo, yow bàyyi li ngay def li ngay def mbaaraan bi du solution yow bàyyi li ngay def li ngay def dama wuti beneen solution Yo, bàyyi li def Yang a death. You're battling a death, yaa ngi dugal sa bopp ci guuta de te gis nga góor dafa lëndëm lim lay wan ak so demé ba ca biir la nga fay fekk du don ben té nak é e wóorul bala nga xam sa way dagul ba kërëm xamna papa deureum xamna eh, tonton Diop Fall ñaar ñepp suñu kanam man sen kanam la maggé ku ci nekk mu na la wax jikkoom deureum nak fé mu tok ma ngay stress stress moko tax jeex dara daluko yakko tek nak stress bi mm. yakko tek dërëm mi ngi souffrir te mbaa xam nga ne ñaari paay soo ciy xool dërëm moo gën a sincère kee dem kee day xemmem jigéen dëkk bu mu wàcc bàyyi na fa benn doom fase fa jabar demaat beneen dëkk fa wàcc fa benn doom fase fa jabar lii maa la ko wax parce que ñun ñoom ñoo dëkk tonton Diop Fall day xemmem jigéen instant yi nii moom dina la takk ci farata moom def ak yow li muy def ak yow ba pare nag bëmax la mooy góor ñi nga xam dañ lay takk maltraité la divorcé la mooy Diop Fall wax naa la nag li ma xam yow kay waa nga war a wax waaye bu ni tonton Diop Fall yow kay rek ni jo tonton ba pare rek ko keteme Diop Fall a ma gënal doo ma laaj tax Diop Fall gënal ma ko Diop Fall ki nu koy waxeeti sax dërëm fii la toog dama yàq keteme tam dëm ma sax dërëm def na ma ko xaw ma nee kaawa ni ko man aay gaab suul naa ñeenti jëkkër jëkkër ju ma am mu dee bàyyi mi fi jot eh, jaar ma ngay kay kay léegi mu yegg tee wax ju ñaaw ju ne dërëm gaajo yekk na ma ko jóob nag moom daa ñëw ànd ak yar ak tegin wan ma ko loolu tax ma nekk ci jóob xam nga nit ku foo soo koy wër ñëwal ci tonton Diop Fall foo na faiseur de malin la tireur d'élite la su la jekkoo du la baal su la jekkoo mën na jël sax yow sa këyitu kër say or say lépp ni ko tungaañ yóbbu parce que dafa mën a wax am na góor ñoo xam ne suñu waxee rek nga ne gongo tonton Diop Fall ci façon góor yi la bokk làmmiñ bi lay jël diw ko li moo ba mu saf-saf marinaat ko ñëw toog jàkkaarloog yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi nelaw nag yeewul yaa ngi nelaw de man kenn lu ma dugg xam naa ko ci lu ma génn xam naa ko dërëm li tax ma bokk souffrir day door man lay tam dëmm fii gisagul dara dina gën a jeex. Hmm. waaw dina gën a am stress. ba xam nga ne stress am muy dund su soo Diop Fall paree ci yow même chose ngay dund man maa nopp Diop man. Eh, mooy ndox mi gën a bari. lii nag de la mooy suñu boroom loo koy ñaan <clears throat> loo koy ñaan na ko ñaan li gën ci yow taw bi ndox mi bari. waaye dërëm gaajo yow dërëm gaajo yow yow lan la ci ci ñëw maa ngi seetaan journal di yokk nga ñëw nangu commande bi ci man waaw mais man li ngay seetaan concerné wu ma man heure bii damaa am sama journalu bopp bu may jàpp te heure bii bu jotee damay jàpp sama journal seetaan man sama yónnewul ci li ngay seetaan yow fan lan nga ga bàyyi fi nga yóbbu fi lii laay ba sama yónnewul ci li ngay seetaan man li ma bëgg a seetaan laay seetaan li ma bëgg a xool laay xool nga bëgg a xool laay xool ma bëgg a xool laay xool. jot lu ma njëgënaay ba. man moo def baax na njëgënaay ba. Kan, kan moo lay jottali njëgënaay bi. eh kan moo lay jottali njëgënaay. man xuloo de. ah. yàlla dimbali na ma maa ngi dara jox bu soobee yàlla boo seetaan man ngay seetaan de. eh jógal sama kanam. télé bi pare nga ci laa wax. ah pare ne. waaw. ah, ah yow yow doo jàpp de. Eh, taxawal sax fi garab. comme du ma seetaan waaye doo jàpp de. waa waaw waaw teel commande bi. waaw doo jàpp waaw te nga sama kanam. te nga puus sama kanam ah non xam nga kii. puusal sama kanam laa. waaw Ndiop. Ndiop ñaari baat. Ndiop. Ndiop euh, euh, dërëm yow. Ah, xam nga kii daf maa yeb léegi nag bala maa avancé benn baat ci li ñuy xuloo bi mooy nangul commande bi teg ci sama lox nangu commande teg ci sa lox léegi lan la mooy problème mu commande bi. daf maa fekk ma jàpp sama journal. Eh, eh, eh, nga ne. nga ne nga ne lan. nga la. ma ne journal sama heure journal dafa jot dama koy jàpp seetaan. waaw commencé wul fii. waaw voilà man daal lool laa mun a. nee na ma nag du ma seetaan man sama journal. ma ne ko heure bii sama heure la. pourquoi ça. waaw heure bii sama heure la. saa su ne bii bu jotee damay jàpp sama journal seetaan ko. Ndiol pour lan lool. mu ne ma du ko fi jàpp. yàlla dëgg la bëgg. ah waaw fii la ma fekk ma toog. waaw di jàpp. Euh, journal bi ndox mu bari mi. Ah. Euh, may yokk. waaw ah. nii de nii comme ni may def nii. Ah. mu jël commande bi ci sama loxo. pourquoi ça. fekk tamit loolu pour lan fekk ma ko mu jàpp journal. waa kiriku laa fekk mu jàpp ko di ko seetaan. ay mike man man seetaan kiriku ma. ay mike laa fekk mu koy seetaan ci magum jëmm toog fii. war a xool journal wara xam li xew ci dëkk bi ma koy fekk muy jàpp ay kirikook ay ay. tom loolu nekkul yoon. ñooy loolu tamit nag. ma wax la nag. waaw bu doon kii ko sax laay seetaan. waaw gis nga booy doog a dem bitim réew. waaw boo bëggee dégg tubaab. waaw da ngay seetaan Mickey. ah en tout cas un homme averti en vaut deux li ma xam ci dërëm a ah, xam ko ci Diofane loolu laa la man xam nga ne dama xaritu dërëm xam nga ko bu baax mais moo ma gënal fuuf Diofane te billaay bu la jekkoo ba def la li mu def say moroom ña nga fee toog dagg seen xol yi. yàq seen àdduna am na ñoo xam ne day jël neenaal seen alal yóbbaale bàyyi fa doom te dootoo ko gis nag aca yaa ngi noonu xoolal def ko waaw yow koy xëy kinde xanaa dërëm dalaa fay dama xam ne jaay dërëm bi kon kay nga war a xam ne man li may wax nii inventé wu ma ko fenn di ko défendre nii défendre ma dama laa caa wax ku gën ka gën nag laa la wax bàjjanu laay nga te laay sama jëkkër la te instant yi sama goro nga donc am naa droit ma gis la ngay dugg ci loo xam goro nga waaw waaw moo gaa sama moroom nga ndax li ngay def ci dëkk bi moom moom rek laay def waaw jërëjëf waaw mu ngi man moo tax say say bëgguma koo dégg di ndax yow sa làmmiñ nga jël di woo sa tuñ yooyu man li may yekk moom xam naa ko di <laughs> naa xool rek xool ba <laughs> yow ki ne yow doo nitu dara en tout defaa défendre nga dërëm de xaw ma nag lu xew jóom nag yaa ma ko gën a xam wax dëgg yàlla xawuma ko guddi xaw ma ko bëccëg fii daal laa ko gisee moog dërëm yépp nag yaa leen gën a xam yéen daal yéenu nee na yéen a ngi noonu seeni façon ngeen di yor ak seeni doxalin léegi naa xool ba xam ñi nga amagum ñëpp bàyyi xel daal fukki ne ma ne ñi nga am ñëpp dërëm a ci gën dëgg a Jóob moom moo gën a kii xam naa ne Jóob moom xaw ma mu demee noonu mais loolu bu mu la yóbbaale de lan bu <laughs> la yóbbaale ne lan bu mu ma yóbbaale ah. waa déedéet waxal wax bi mu yegg kay yow gisagoo dara yow bàyyi naa la ak laay mi lay turum taj fan yi ci roq bi rek da ngaa defe ne yëguma li xew fan yi yaa ngi souffrir de dërëm de yaa ko gën a souffrir <laughs> bàyyi naa la laay laay da boolewul daraa ki wax pattam jooju. ay yow baax na man naa ci bàyyi xel <laughs> yàlla baax na sa xel moom di liggéey xam naa ko bu baax. waaye jërëjëf. waaw loolu dëgg la. waaw loolu moom dëgg la sax nag man seddaan mu mi waaw man taw bi laa doon seetaan jàppal ma lii balaa kii bee. waay waay waay de ba léegi. kaay mu wax la nag. yow xam nga luy sa problème hmm. yow xaw ma saytaane nga. Hmm. xaw ma da ngay arbitré. Hmm. maanaam yow da ngay déglu ki wax ma nga paa doon déglu fële di ñu ping pong régler problème bi wala nga bàyyi noonu noonu. waaw léegi problème bi xam nga lan la njóog bu nga dégg dégg nag njóog. depuis nga ñëw fii boo léegi problème bi. dafa augmenté waaye nekkul day ñofal depuis nga ñëw si kër bi problème yi day augmenter waye du descendre ñofal hmm? ñëw nga si kër bi sa alaykum da nga nekk di wulo ak hmm nga dugg si si kër bi ah commencé di attaque américain yoy yep noté naa ko mi ngi si tableau bi ah nga ñewat bu ko jël gel jamur, hmm. si bir kër bi nga ñewat encore bëgg def impose Euh, njëfaal waxtaan day neex borom kër. yow yaay borom kër gi. waaw moo tax waxtaan day neex borom kër fi mu toll nii instant bii nii ñun dañu bugg a jàmm la paix. Ah. léegi nag comme jàmm la paix la ñuy soxla Ndiob da ngay rester tranquille comme comme xam nga lu ñuy wax rester tranquille ou bien rester door. Eh. c'est eh. wax nga ba pare déglu naa la. waaw gis nga wii wii wii goog ngay wax. waaw dootuma ko waxati. benn kër gi bu yeboo nga moom ko ba moom waa koñ bi waaye indi woo ma fi ñi ma fi indi woon mooy ñi nga xamante ne mooy sama njaboot kii nag bu fekkee seytaane bi moo tax nga naa danga may dàq def nga lu ñaaw te kër gi nag ni nga ko amee ak li nga daan jaay fël-fël yi nga daan jaay dorog yi nga daan jaay <laughs> ba taxawal kër gi <laughs> yàmbaa ci nga ah. ak ay héroïne ah xam naa ko ah. li may xamoo ci dara de. ah kii dafa toj dëkk yu bari doog a installé fii ba ci dem nanu sàcc nag yi sëñ Abdallah Diouf. allahu. léegi nga bugg a ak ku bar nag yu bari. léegi loo bugg a wax. Ah, dama nag yi feeñ na. waaw waaw te ku ñu ko jàppee man. xam nga xam nga ci dara. ah, ah ñeneen ak ñeneen. Ah. sàcc nañ seen i nag. waaw. nu mën nga naan wus. naa génn wala kii toog defal sa choix. yaay génn. maa ngi lay xaar neuf minutes defal sa choix. yow yaay génn abal nu. choix bi kay moom daanu na. moom dina def damay toog sax nga def su bi defal choix bi. léegi demal après maay def choix bi. eh eh eh. bi xam nga lan la. moom naa ni ñu abal waaw waaw waaw demal demal. nanu abal. choix bi loolu la. yow xam yëgoo li xew. demal ñuy def yow bu ma amoon lu may seet danaa la ñaf ay. pes koy ñaf koy eh, eh. ñaf. donc fii loi bi kenn du dóor nit. yow xam dama ne jinne yi laxasu ci dëkk bi. lijjanti li kii mu génn kër gi. moom yow génn nga ba pare. ma jël ndaw si takk ko yóbbu ko. yow doo takk kenn yow lay bu. yow demal ak sa boobu rëy boobu. kan nga wax borom boobu rëy. nga ne ñëw ah, kan la waxu la de waxu la demal ah Ndiop Fall li jënd ko na génn kër gi gaaw. yow yaay génn pare fi. moom nag na génn. waaw Ndiop Fall day génn. abal. Ndiop Fall day kër gi am jàmm am salaam. waaw Ndiop Fall ay bi fi am yépp moom la. waaw Ndiop Fall day génn. waaye yow tam yaa si topp dangay génn. kan yow yaa ngay génn. Ndiop Fall day génn. man mënumaa génn kër ne déglu rek. Ndiop Fall day génn tamit. waaw man mënumaa dem doon bañ wax nii rek. waaye Ndiofane day diggan na na ya, yow da ngay génn. Ya, wallaay mun maa kii dafa yaay deuxième position. mais demaguma de. da ngay dem de. dem mais du ah dina dem de. ah demaguma parce que yéen da ngeen a ñëw pour indil ay jagas jagas sama xel bii de loolu duma ko d'accord. man daal demaguma. voilà dama lay wax rek. man yor naa appartement boo yoree xaalis seet ya ma yaa xam looy liggéey doonal taxi man li ko yor def ci man. appartement bi faw ñu fay courant bi yow mel ni gaañ yi ci ñi réglé kaay yow bàyyi li ngay def li ngay def mbaaraan bi du solution yow bàyyi li ngay def li ngay def doo ko damaa yaakaaroon ne réew mi arnaque jóge nekk arnaque ndeke dóor kat yaa ngi dóor ba léegi njublag kat yaa ngi njublag ba léegi sama waaj ci loo ne waaw dërëm bi ça yaa ngi ci jàmm lu xew ba jàmm ah kaaw hmm? ma ne lu xew ba jàmm sawa sawa durum sawa ah déet man kay ma sawa yow dama laa fekk nga sëngeem moo tax ma lay laaj lu xew ak yii nga yëy nii mel ne xale man ma sax durum man bu ma la waxee boo ma fekkee ma taxaw nga gisuma si situation yi nekk fii war nga xam ni ça va pas waaw ça ne goog nag laa gis ci yow moo tax ma laaj la lu xew Doro man daal dafa am loo xamante ne nii mun naa ko waxtaan ak yow. Hmm. ndax yow xëy na man ak yow góor nga man góor la. dëgg la du dëgg. Doro hmm. xam nga man jamono yi yëpp xam nga ni Ndeye Ndiaye hmm. dafa voyagé voyage bi yàgg. dëgg la. dëgg la. sama oom yi nag dafa manqué huile. ah liquide liquide. waaw waaw huile waaw liquide. liquide lay wax. liquide voilà liquide li lay manqué. ah man sax dama doon bëgg di dem marché pour joxe 3000 si yooyu noonu xam nga 3000 3000 waaye yàlla dafa def daa am benn xale bu jigéen boo xam ne dafa ma gis xam nga rek góor góor góor mooy góor yow góor nga man góor la ah voilà léegi ma wax la waxi góor hmm, du dëgg du ma jaar ci jadda du ma jadda koñ du ma jadda si ginnaaw directe laa lay waxal nga dégg ko ah léegi nag ma xol xale bi lateral gauche bi ak droite bi affaire bi am lu mu def si man hmm? ma waxtaan ak mom xale bu jigen ne ma jaral si sama prama, ma wax ak mom ma jar si prama, sango bo set romba na la chaque jour bobu fi may dem si prama, hmm. ma dem wa deug yalla mom xale bu jigen bi hmm durum karkaase rek la ma deful karkaase ah. rek la ma deful karkaase kese la ma deful loo xalaat rek xale bii def na ma ko def na lu nekk waaye dërëm benn affaire moo si nekk ndekete xale bi dama defe ne jamono bii mu ñëpp a kenn wul mhm. pour man ku sérieux lay waxal mhm. ndekete moom lu muy def yëpp dafa may def locomotive yee yee yee yee envoyé ma mu ne ma nag ah. yow il faut ngay jox ma xaalis wala ma wax Ndeye Ndiaye. oh oh oh. oh, oh. nag yow xam nga ne bu waxee Ndeye Ndiaye mooy aduna moom jeex na si man sama aduna moom mooy jeex na si man. Euh, saw saw Jorom ah. Euh, kaw situation bii nga ma expliqué critique na te ni ma déggee sa wax. mooy déjà nii nii nii nii nii. sëy lomotif moo ngi ci xale bu jigéen. billaay te Ndey Njaay bu toqee ci noppam. musiba am na mooy sa sëy tas na. te déjà tooñ nga Ndey Njaay waaye tooñ nga yàlla. léegi nag solution mën naa am. xam nga yàlla mën na ma baal. waaye Ndeye Ndiaye du ma baal. mën naa yàlla moom mën naa baal léegi nag solution bi mooy nu fexe ba lomotif yi bañ a génn. kay ndax yow say lomotif ci réew mii. ilaha illallah. say lomotif kaaw. war ne mbatt ci digg te ah, digg écran bi bu ah, lu doy waar la. léegi nag waaw. Oh, man mën naa defar lépp ba lomotif yi du génn. alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina dërëm yow lii laa moo tax ma jàppal la. ma waaw. waaw léegi nag loolu daa lu mu laaj. mooy da ngay joxe xaalis man ma travailler doolu fexe ba lu ma te fii du génn dërëm ah man ak yow man ngay waxaal de non lii business lomotif la business la business la lii ay ay mbir yu war a génn la dégg nga ay awra yu war a génn ak ay ay ay affaire yoo xamante ni yu war a génn ci digg dëkk bi ñëpp di ci teg seen bët la kon kooku business la da ngay mën a fay ma fexe ba affaire yu di génn mënoo fay ma bàyyi say awra génn dorom yow nga nekk ak man si sama kër wa dorom ma dinal dundal si sama kër wa dorom luma am ma bokka ak yow wa dorom amo loy def ma yow ah. ludul ngay def ma santas encore yow ko ya xala bu jigen bi yéen yéen yam business la wallay man lo lay business de man mbir ay mbir yu gin narna naa fi ci rew mi mako fexé ba génnut ta dan may fay xaliss ndax man fa jaar sama bos da ngay business ci ah, sama boss wa wa bi sa boss dur bu ndaw nak sa bos du bu ndaw de te yow sa bos ne delli ci dëkk bii <laughs> alaaji léegi euh, joxe rek joxe rek man li jënte affaire yi man fi mu ne nii kenn dootuma naxate de alaaji dorom kii yow la wallaay maa toog alaaji man fi mu ne nii affaire lomotif yi dama ciy liggéey de waa ci business boobu man ba si man wallaay ci business lomotif laa nekk réew mi ndeke lu koy gën a doxal mooy nekk ci business lomotif ay lomotif ñi fi yor ay millions yi léegi gis nga réew mi léegi gars yi yor seen tiktok yi di wax affaire lomotif ci la ñu nekk ba yor ba tedd man ci laa ne de. juróom ma lay dundal sama sama waaw di lay jox ngay lekk. di lay jox ngay naan. waaw lu ma am ma bokk ko ak yow. waaw mooy tax ngay def ma sant. waaw loolu leneen la lii nag lomotif la. yow koy yaa ku jigéen ki yéen am. ah waaw lii lomotif la alaaj. Amérique Amérique na ngeen def. ok ça va foo foo fooy demoon. da affaire bi léegi nice. Oh, <laughs> oh. mu ngi no no ñuy wax de bu toqoon ci noppam bii nga gën a tas nga nga gën a yàqu fi mu ne léegi mbir maa ngi noonu bu la ko jaralee nga joxe bu la jarul lu nag. yow yaay xool. waaw léegi dañuy waxtaan. waaw ñu nañ waxtaan. yàlla baax na dañuy waxtaan. incha allah rabi dañuy waxtaan maanaam yow. waaw yow yow maa ngi lay déglu rek. bu sottee rek nga dugal awaar. dañuy waxtaan waaw waaw. Sénégal léegi ñëpp doomu xaraam la demal rek dinañ waxtaan. waaw waaw loolu loolu mais parce que. réew réew mi laaj loolu waaw dinañ waxtaan juróom dinañ waxtaan. waaw juróom dinañ waxtaan. juróom dinañ waxtaan waay. man yor naa appartement boo yoree xaalis sept ciment yaa xam looy liggéey doonal taximan li ngay war maa ko yor ñëwal def ci maane appartement bi foo ju fay courant bi oh old man <laughs> oh, old man <laughs> oh ah no <laughs> old man mama you ah, you you bopp problem problem okay lan encore okay waxal say wax fulla waay ah, ah waaw yow américain yow doo wax fulla doo wax fayda yow affaire ñàkk fayda rek ngay wax lan mooy say problème ah sooy moo fekkee may tëdd démba loolu ngay def ma may tëdd si fii ngay jekk-jekk rek di moo wax yu kenn xamul lan la tey encore may jàpp gaam ngay yàq gam bi oh. xanaa xamoon nelaw di toog moo dàqa si nelaw yi oh. sacca nelaw nii moo dàq boo ko yàqee yàqal nga borom lu rëy oh. <laughs> calm down calm down man America ka fuck you, ok léegi lan lan lan lan lan la but while back dégg na yow ak fukki dërëm takk fukki dërëm waxtaan dégg na America dégg na but uh, America yow lan ngay dégg for you. You? sànq dégg uh, na yow ak fukki dërëm wax uh, Adamo You. longatif longatif longatif I don't know. yow américain man ak dërëm lu ñu doon wax fii kon yow yaa ngi taxaw si suñu ginnaaw di dëggal lu ñuy wax. Oh, ma sama first maam second maam and third maam nekk na in FBI Federal Bureau of Investigation. soo ñun déglu batt nettali. kaay naka ma wax kaay moom wax la américain musul la jot sama jëkku musuloo xam vrai kaaw vrai kaaw vrai vrai vrai vrai vrai kaaw musuloo ko gis musuloo xam sama bandi man ni ma ak ni ma ñappe sama woon man xamuloo ko musuloo ko waa waaw waaw déglul rek dama lee wax eh, dama lay wax xam nga yooyu yëpp musuloo ko gis ci man jikko bandi bi musu ko gis ci man xamuloo man dem na jeel man dama lay wax tëdd naa oyo dama lay ah, gis nga li ngay wax ni billaay wallaay tala ak yal naa mukasu au nom de Dieu bis boo taxawee ak nit nit nga wax ko dara si li ma doon wax ak dóorum fële si suuf américain bu fekkee duma la ku bal siis ku toof Tof, tof, tof, tof. bobu six coups yàlla ngay wax ni kaw lañ doon waxal. you gonna kill me. billaay boo ko defee ma doon la six coups. ragalul yow. because man go you American, okay? njëkk a ñëwoon jaay sala xawi ngone ma gane buran dawul ko ragalul bat dégg na li nga wax. wa dégg na. du dégg nga luma wax. bat du ko netali du dégg nga luma wax do ko netali billaay wallaay tallaay américain bu fekkente ne ni américain yow bugg nga jàmma rek laa si si si yow jàmma si yow jàmma si man jàmma si kër gi ah waxal lii ngay xool yow nga dina ko wax euh, sa waay euh, euh, Ndeye Ndiaye so dégg na longatif yow very caga very saay-saay very xooñ every time you say américain caga américain xooñ you the big xooñ Américain. The big hole. 20 years of colonialization. bul ma yëngal nag. dina ko nettali non voilà boo ko nettalee rek ma lekka la ko liggéey ma lekka la ma ñappal sama woon deux secondes ma nokka la. deux secondes ma nokka la américain xanaa xamoo man may nekk kan xamuloom ah xamuloom ah wax ko ah wax xamul yow. wax ko Ndeye Ndiaye wax ngay xool wax ko kenn waxuma Ndeye waaye boo waxee keneen fii billaay wala américain. wàññi ko day wax ko duurkat la moom la duurkat américain e day am fit man ñu xale waaye tey. man yor naa boo yoree xaalis settima yaa xam looy liggéey doonal taxi man lii ngay war ko yor ñëwal def ci man appartement bi ju fay courant bi yóbbee leen You're réglé kaay deaf, ling, li ngay def li ngay def mbaaraam bi solution You're bailing a deaf, ling, a deaf. solution